loo wax. yaa yaa ma loo loo wax. <laughs> waaw nag. naka mu. nga lekk de. Hm, di lekk sa xaalis. Hm. ana ana mu ne ana chantier yi. ah. yow loo wax yow. dama bëgg kay. waaw. kan ah waa ji déggul olof waaye déggul olof ah man du ma dem géej man damay kii damay mane damay manee bar waaw Capogal hmm. Sangkayu. Wow. Sangkanya ñako sada kino mo gis ñako sada kino na yuti fe jobu de hmm. boy ane no wajib de gatuk lay wajal gatuk lay wajal eh Balata Lamé fu mu jëm Jump. Bon ami. Jump eh jël lợm nữa. Wow. waaw Huh? Mẹ chẳng cần. Hả? acal lah eh 啊？ <laughs>